li ngeen indi dafa simple hot brownie lañ leen indi dafa nekk boo benn euh, gâteau boo xam te ne chocolat la léegi euh, sans plus tarder dañ leen koy won comme puisque dañ ci bëggoon ci lu gaaw lañ ko bëggee defee ñu won leen éléments yi ko composé nen la ak fruit pour euh, après ñu koy lekk li décoration bi la li ci décoration bi la bokk mooy chocolat noir bi moom lañ amee fii tamit fii tamit moom lañ fi am blanc bi léegi nga ngeen xool ne ñetti nen lañu am suukar cacao ak farine léegi cacao bi ak euh, ñetti éléments yi laa jël moom laa mélangé fii ba pare pour mu mën a gën a gaaw léegi comme ki mélangé naa leen ba pare ma di jël teg leen à côté ñu taal four bi jël suñu beurre bi seeyal ko bala bobu ñu jël euh mélange bi ñu mélangé woon yëngalaat bu baax dañ jël euh farine lañ jël sucre ak cacao mélange ko ni jël ci euh jël ci kii bi nu tudd ci chocolat bi euh, ñu ràppe ko tuuti fii ci biir moom lañ mélangé ni pour bu ñu bu ñu tardé daal léegi dañuy jël tuuti suukar yokku ci jël meew def ci jël na li def ci ñetti nen ngeen soxla à chaque fois bon koy defar bu dee pour six personnes lay doon comme voilà voilà suñu beurre bi nga xam ne seey

ఉడికి పీరకం fay suñu gaz gas. beurre bi ñu soxla woon गरेको थिएँ लाँडुको da ngeen di jël papier bi ngeen def ko ci parce que boo defee ñu jël papier pour pour chocolat euh, bi mu mu mu xoolee. не сорти. ñu wàññi một tey xoolal ci plat bi ñu wàññi ko suñu four bi dañ koy taal deux cent trente léegi ñu ko taalee ni 35 minutes ah, Oké. okay uh, voilà. 35 minutes ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌಡ್ ಕಲ್ಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ dugal nañ ko suñu four 35 minutes dafay durer